jërë ngeen jëf njëg yi ñuy wàññi ci réew mi l'observateur ne nañu bu luyaas bi moom day xaar ubbi l'observateur njëgu luyaas bi bu dee wàññeeku ci réew mi déwén lay doon maanaam benn fan janvier ci lañ ko bëgg tàmbali dogalu wàññi njëgu luyaas bi yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne bañ mu demee ni mu demoon moo tax dootuñu ko defub décret ab loi la koy def ministre Abdou Karim Fofana porte-parole gouvernement bi di ñu leeralal ci yéenekaay bi jëlee ci rapport audit bi ARMP autorité de régulation des marchés publics def ci marché public yi ak ni ñu tëddee ci réew mi 2020 ak 2021 ay njuuj njaaje ki tappale ki léexóor yu dul jeex feeñ nañu ci marché public yi ci réew mi ñetti milliards ak genn wàll yu kenn contrôlé wul la ñu gis ca piment ndax nee nañu secret la Moussa Sow mi jiite commission des marchés ba foofee yéenekaay bi nee nañu lu ko neex la fa def dafa tappale ba xolam sedd bañ na ko ba ay entreprise yi boppam la tànn ngir DRP yi ca DER délégation à l'entrepreneuriat rapide bari na ay marché entente directe yu faam bañ leen waxee dañu ne secret dépense ñu bari nag rapport bi nee nañu moo di marché gere-gere bu toll ci 715 gi ñu jox cabinet Atepa ca mairie bu Ndakaaru it ñoo nga fay tudd maire ba fa woon di Soham Wardini ak njaaj gu toll ci 2 milliards 379 millions ma ca mairie bu Pikine ak Abdoulaye Baldé ma woon ca mairie bu Ziguinchor Libération nee nañu rapport ARMP bi wax na ay mission d'audit yu fa demoon yu fa gisi tappale Abdoulaye meneen mu di Abdoulaye Bibi Baldé ma incitation à l'entrepreneuriat rapide d'ider, DER journal Les Échos nee nañu ñoo xadd kaaba gi ci yorinu bon ay marché entente directe ak ay surfacturation yu dul jeex lañu fa gis fa la ñu gisee ab moniteur enregistreur Atomos Ninja buy 356 000 ñu facturé ko ba ci 15 millions francs CFA nous waa DER dem nañu ba xamatoon lu ñuy wax mujj gi buñ leen laaj duñu tontu ndax dañu secret défense la enquête dina kay wax ñu ne ci le rapport bu ARMP bi wax njuuj njaaj que am ci marché public yi ci jamonoy coronavirus gi ci la gaay yi profito bokk na ci ñuy épinglé pharmacie nationale d'approvisionnement ak ministère éducation communication nationale agence de développement municipal di ADM ak Ageroute Enquête dina nee nañu ñooy ñi nga xam ne bañ leen audité lu dul gongo gisuñu ko ci seen doxin bu leen ñeneen ñi ñu contrôlé yépp ay gan lañu yu yeew yu bëy ngan gi sëriñ Abdou Mbàkke Falilu borom makaarimal axla amal keroog dimanche ca Kayaar mi ngi ci xët mu njëkk source wa coow la fa am dox ci diggante kilifa yu usine bii di Barna Sénégal ak lenn ci askanu Kayaar wii bañ usine ba Diallo directeur général bu Barna Sénégal ñaareel bi di waxtaan ak askan wi ngir ñu dellu si seenum xel xam ne usine fabrication d'huile ak farine de poisson boobe ñuy def ca Kayar njariñ rekk lay doon ca dëkk ba njariñ rekk lay doon ci askan wi njariñ rekkit lay doon ci réew mi sang ba ca ndindi xamal leen ne ci jamono ju mitti la ñu nekk nit ku ñëw cib dëkk am xalaatu investir ay milliards ca dëkk ba ngir loo xam ne bu taxawee dana law ba tiq ñëpp ci ngëneel nit ku ni dañu ko war a jàppale taxawu ko waaye kenn waru koo xeex baan ju koy xalab source xamal nañu ne usine bi waral coow ñu naan ko Barna Sénégal léegi soppi nañu aw turam turam Touba protéine marine la tudd confrontation mu di téesante ci wàllu yoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr journal L'Info nee nañu dana am bu changement dernière minute amul Ousmane Sonko ak Adji Sarr danañu bokk toog ñoom ñaar ci bureau doyen des talaata juróom benn fan ci weeru décembre yéenekaay bi nañu Ousmane Sonko mi doyen mujjee déglu moom ma ngay wéy jàpp fa mu jàpp di wax ne li ñu koy tuumal ay complot la te joxe ne yi koy firndeel ci jamono jooju ndaw sii di Adji Sarr mi ngi ngooy fi mu ngooy di wéy di tuumal Ousmane Sonko nañu moo taxit talaata ji Ousmane Sonko ak Adji a daje ci 6 talata la jot lu ne man na ca xew la xewon ca salon Sweet Beauty ci digeunte Adji sara Ousmane Sonko le quotidien nee nañu mom lañu yeggale ji ca kanamu doyen des is Vox Populi nañu film bu Sweet Beauty bi mom la dem tegalat ko doyen des is mardi jurom ben fanture décembre bu 11h jotté ca lañu len leen convoqué ñom ñaar ngirup confrontation sur soi dañu xamal lañ jital parti fi di Ousmane Sonko amul soi fu mu jaar dem ji lu ko may Maham jall mën nako door ab mandat dépôt kay bi bind ne muy Sonko di ndaw ci ko don Adji di seeni avocat ñom jot nañu seeni convocation nomination mu di ak pal journal Life bind na ci xëtamu njëkk ne Mamadou Lamine Massaly falu na moom la def démb PCA bu office national de la formation professionnelle joueur professionnel yu Sénégal ya ca Qatar ñoo ngi daanaka ci mboolem yéen a kaay ñu bokk ci ñoom laas mi xëyee ci ñoom ñetti footballkat yi mu gis ne yëngal nañu tañeer bi mu di Iliman Ndiaye di Pathé Ciss ak Pape Gueye stade yéen tànn ci ñoom footballkat yi ñi mu jàpp ne ñoo tax mu jëkk moom Gana Gueye la ko fa yóbbu mooy dafa bëgg xam ginnaaw Gana du football ndax ñaari carton jaune mu am kan moo koy remplacer suñu digg ak Angleterre